kon man El Hadj ay mbay maa ngi seetaan DK TV. waaw ñu ngi leen di fay yéen waa DK TV di leen wax ne ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yeneen bi sant suñu ñaari waajur euh, sant mboolem koo xamante ne rek xam nañu xam nga di ko di ko commencé suma sumay mbokku suma mbokku jabar yi sumay goro xam nga ku ci mel ni Mamadi ndeysaan sama goro bu baax ba Mamadi Sidibé xam nga mu ngi dëgg Fass ku ko xamul dégg nga ko. ak suma famille jabar ndeysaan si ko dalee sama jabar suwaadu ba ci ay rakam ñoom ñëpp quoi maa ngi leen di nuy di nuyu tom waa Gueule Tapée di nuyu yéen tom site bi di nuyu tamit sama waa écurie muy écurie Soumbédioune bi nga xamante ne foofu laay exercer daal. waaw Modou booy Boy Niang Modou ñaa Boy Niang combat combat bu doy waar la mais encore une fois li ma waxoon ci ci ci Modou Lo Ama Baldé moo ñëwaat encore. Modou Lo fu mu toll nii continuité lay am maanaam day day li muy préparé woon loolu lay continuer rek euh, te pikin pikin euh, li may wax gars yi dafa am bukki bu dugg bukki bi dug bukki bu dugg biir pikin te boo bu ñu sàgganul balaa muy génn pikin day jeexal pikin bu ma waxee loolu mooy am na loo xamante ne dafa dugg biir pikin jaxase pikin Pikine fu mu toll nii doy na waar parce que cent pour cent bi ñu doon wax wala mille pour cent bi ñu doon wax vraiment Pikine dafay dafay néew foofu parce que Ama balde bëri na ñàkk supporteru Ama Baldé am na lu ñu jàpp ñi ànd ak Ama Baldé am na ñuñ ñu jàpp Eumeu Sène bëri na ñàkk loolu yëpp dugg na ci biir Pikine encore euh, kii nu mu tudd sax booy ñaa war a dem bëri ji combat. moo Modou Lo Modou Lo c'est le roi des arènes Modou fu mu toll ni amul dara lu muy ñàkk ci làmb li ñuy wax ci làmb yëpp am na ko léegi pression bi mu ngi dem ci kaw euh, nu mu tudd Boy ñaa Boy Niang moom mooy xale comme li ma wax rek ci kii ci kii bi tey Ama Balde gis nga lu mu bëree Ama Balde tey man bu ma ko yóbboon ci làmb ji sax loolu laa koy conseil Ama balde zéro faute parce que lii daan Modou Lo lu mel noonu la Modou euh, boo ko buggee daan danga koy ñame di ko attaqué tey situation bi am ba ba Modou daan Ama Baldé situation boobu mu mënoon na am ba ba Ama Baldé daan Modou parce que dama waxoon ci combat boobu cinquante euh, quarante soixante la te bi ma koy wax am na fu ma ko tegoon te ba léegi nii noonu la demee entre. entre euh, nu mu tudd Modou Lo ak euh, ak Boy man encore je donne encore Modou Lo dama koy jox 60 encore jox kii quarante parce que Modou Lo il est à l'aise ci mbër boo xam ne day taxaw tey boo xoolee Balla Gaye moo fi moo fi moo fi daan Modou Lo avec la manière mais léegi dangay xool kan moo ci yor bëre Balla Gaye pour nga daan Modou Lo il faut nga xaw a yor bëre Balla Gaye te buñ ko waxee te de bëre Balla ak bëre Boy Niang bokkuñu booy Niang opportunité la dafay dafay taxaw di xaar opportunité pour mun a exercer day xaar maanaam day xaar ba nga may ko dara mais Modou Lo mooy mbër boo xamante ne du maye dara vraiment combat boobu ça sera encore trop difficile pour pour pour pour pour Boy Niang génn ci man de loolu laa gis man vraiment. non loolu force la fu mu jaar dee am pression fu mu jaar am pression mais pression bi encore une fois man man man man du ci du ci du ci kii sax euh, pression bi ci si ci ci la lay ci papam la ëppee parce que tey man dama wax ne De Gaulle euh, dafa juum ci benn côté parce que lu toll ni Pikine booy préparer combat royal benn nit la ñu waroon préparer man loolu laa wax dama ne ñoom dañu waroon préparer Ama Baldé pour mu dem ci combat royal bu ko ñàkkee ñu préparer waat keneen mu dem mais li waa ji di wax on peut pas attraper deux lapins à la fois tey Ama balde mu ngi dem di bëri ci combat royal euh, nu mu tudd sax euh, booy booy booy ñaa ko xaar encore pour mu bëre léegi booy ñaa ban ban ban ban Modou bëgg a bëreel Boy Niang ban Modou Lo la bëgg a ndax mu ndax Boy Niang dina bëgg a bëreeg Modou Lo sans sans roi des arènes wala Modou Lo avec roi des arènes kon foofu day xaw a jafe tuuti pour nga pour nga wax ne kon ñii am nañu cohésion parce que tey boo demee Pikine tey supporteru booy ñaay dañ naan Boy Niang yaa fi ne ñee di wax ne kii yow yaa fi ne waxuma pour pour pour pour pour jaxase wala dara mais juste rek da ngay xool bu baax li ci nekk parce que tey ñoom ñooñu. bu ñu waxee ne dañu ànd à cent pour cent dangay gis ne kon am na lu des ci ànd bi comprendre tey Ama Baldé bu amee combat ak Modou Lo ku mel ni Eumeu ku mel ni nu mu tudd sax Boy Niang ku mel ni Kële nu mu tudd sax euh, euh, ñeneen ak ñeneen dañu waroon ñëw ñoom ñëpp jàppale Ama Baldé ci contact yeeg lépp parce que Modou Lo loolu la ama ah, Modou loolu la am parcelle Modou Lo écurie yu nekk parcelle yëpp. dañ koy dañ koy jàppale contact moo tax ma ne la Modou Lo day bëre ay Ama Baldé yu bare mais Ama Baldé munul bëre parce que boo déggee Ama Baldé bi ñu ko laajee fan la doon fan la doon contacté mun la ne damay dem ba euh, nu mu tudd sax dëkk yooyu xaw ma gorom la ñuy wax xawma xaw ma dëkk bi ñuy wax xaw ma euh, euh, ginnaaw ginnaaw gorom fële côté noto bi foofu lay taal otom trois heures di matin ba foofu dem di contact kon te mu am ay pariñ partenaires yoo xam ne war na leen mun a am biir kii même chose moom mooy ñëwaat encore ci ci ci booy Niang Boy Niang kan mooy nekk pariñ partenaire am est-ce que Modou est-ce que kii nu mu tudd sa Ama Baldé dina dina dem jàppale ji dina jug dem jàppale ji kii ci contact est-ce que Eumeu dina jug dem jàppale ji man Pikine dañu ñàkk benn benn benn affaire bu garaaw muy sox gis nga sox moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy sox boo xoolee bu baax soxu sox moom mooy kii nga xam ne mooy pilier Pikine parce que soq boo ko dégloo ci ay communication ak li muy def yëpp lépp lu am pikin yëpp soq mooy jug dem ci ci kër yi dem kër amaa Baldé dem kër kii dem ket kër beneen mbër pour jéem leen boole mais boo xoolee moom fu mu toll nii sama bopp ma la gënal du bañ naa la parce que moom am na combat fu mu toll nii vraiment da ngay gis ne combat la tal fu mu toll nii pour jéem pour jéem a am dara te vraiment ñoom waroon nañu mun a nekk benn pour jéem a xool nan la ñuy def. waa day day bëri consigne xam nga tey kii bu ñëwee nu mu tudd sax combat bi mun naa ne man ni ma ko jàngatee daal du du du nekk combat bi jàppante moo ci ëpp jàppante taxaw xam nga mais du nekk comme bosu Ama Baldé bi munul nekk Ama Baldé Modou nu mu mel booy Niang Modou munu ko mel parce que Boy Niang c'est pas un nataaka encore une fois day taxaw day xaar day foog comprendre nga nekkul un attaquant à cent pour cent te bëre boobu bu ko naree bëre ak Modou Lo Modou Lo il est plus à l'aise ci combat bi que que moom parce que moom déjà mu ngi bëgg a jël roi des arènes déjà daan nañ Ama seen Eumeu ñàkk na ña ñàkk na couronne bi ki ko ko ñàkkaloo moom laay bëreel ama moo ke Ama Baldé dem na ji bëre ji ñàkk na waa Pikine ñu ngi may xeex wala waa Pikine nangam ak nangam yooyu mooy ñëw ci bopp bi te loolu force la day ñëw te discours yi sax mooy loolu papa ji dina ko ne xolal defal nangam parce que fii nangam kenn bugg la wala genre affaire yi mel noonu di fekkee xam nga mooy loolu mais Pikine man <laughs> man damay wax sama xalaat laa Pikine pour mu baax il faut Boy Niang daanu non Boy Niang bu mooy defaraat Pikine parce que boobaa ñëppay tolloo mais Pikine pour mu baax Boy Niang mooy daanu mais Boy Niang bu daanee Modou Lo Pikine day fa lay jaaree dootul baax man maa wax loolu. waaw merci beaucoup vraiment maa ngi jégalu encore. Euh, ci situation yi xam nga vraiment maa ngi jégalu monde làmb di jégalu képp koo xamante ne dégg nga ma wax wax boo xamante ne dafa xaw a déplacé ngeen xam ne peut-être offre bi la wala wala li nekk sama xol ma denc ko war ko wax xam nga loolu la ba ma wax loo xam ne jéggi na képp koo xamante ne wax naa ci loo xamante ne jéggi na la maa ngi lay ñaan nga jégal ma xam nga di wax ne lu jub. suñu borom la lépp loo xamante ne baaxul ñun la quoi vraiment maa ngi tàggu encore di sant euh, waa DK TV ci opportunité buñ ma may pour ma mun a exprimer wu. comprendre nga di ñaanal tom encore une fois su ma écrit ku mel ni Diène Kairé ak euh, bébé Diène ñu jëm ci bés yu rëy maa ngi ñaan mobilisation bu rëy ci diggante bi xam nga Médina Fass Colobane ñëpp dajaloo nekk ci ginnaaw ñaari boy yi parce que vraiment ñun am nañ ci ñoom yaakaar. vraiment Diène Kairé le 17 mook Zarko mu daan ko jël bu set wicc le vingt 24 décembre ñu xaar euh, bébé Diène war a bëri ak yeneen booy yi nga xamante ne mbañik gis nga dafay booy yi tamit dañu war a bëri le 25 décembre le cinq décembre ak euh, Thiam Thiam production xam nga vraiment mu ngi ñëw ak journée bu doy waar xam nga moom tam ñu ngi koy ñaanal tamit journée bi xam nga mu dugg ci bisimilah génne ci alhamdulilah rabil alamin yaay Seydina Mohamed man Malick maa ngi seetaan DK TV. oui euh, man Moustapha Guèye maa ngi seetaan DK TV. man Viviane maa ngi seetaan DK TV. yesa yesa Wally Ballago Seck bi connecté wu ci DK people ah. waaw man El Hadj Abou Bilal Koutia damay seetaan DK pour yu am solo. ngaa ko blende maa ngi seetaan DK TV. Dip Doundou Guiss DK TV. Malomzo Dal maa ngi seetaan DK TV. pré léegi Malick yi la mu ngi DK TV way dina ko seetaan waay voilà. yàlla na ngeen nekk ca kanam li neexul. DK TV.